auzu billaahi mina sheytaani rajiim asalaamualeykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu suñu naataango yi ak kilifa yi ngi ñu xam ne moom suñu honorable député yi di nuyu yéen waa presse bi di nuyu waa Sénégal yëpp di bal ñëpp àq di balu ñëpp àq ñi ñu fi dajee tey te kenn xàmmewul bi structure ak beneen structure benn principe rek moo ñu fi dajale muy principe d'équité principe de justice ak loo xam ne am na ci réew mi te ku yaakaarul ne ci nga bokk it ci nga ndaxte taxawaay bii ñu taxaw tey du tey lañ ko taxaw taxawaayu artu la taxawaayu artu la ak taxawaayu yëglu ndax kenn xalaatul ne ak li fi xew ci gannaaw ci juge Sabassy fay ñu yegg ci ba ku nekk di laajte fu saaba si bokk ñu yegg ci ba li dal héros yëpp mu dal ñu te pourtant saaba si deful lu extraordinaire dafa rendre rek justice wax droit rek la liir waaye dafa dafa wax lu fi tumranke li fi tumranke mooy dañoo yeggoon ba xalaat ni nekkatuñ ci état de droit dañoo demoon ba xalaat ni ci état wu dawal jàpp lañ nekk dañoo yeggoon ba xalaat ni ku musóoru bu wengee ñu jàpp la bu sa cravate bu yolamee ñu jàpp la te nag benn nit rek di ko décider ñu ni moy clé de voûte des institutions mu jël institution bi di ko fénq ci suñu kaw notamment di ko fénq ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul lu mu dajul ci àdduna bu ñu nee de mars 2021 wala février 2021 man leen amul ba mu nekkee di def liggéeyu député di def ay investigation di dénoncer ba léegi mayuñu ko jàmm may ñu ko jàmm ci biir liggéeyam may ñu ko jàmm ci assemblée nga ko yàlla andi woon may ñu ko jàmm ci njabootam may ñu ko jàmm ci Ziguinchor ga mu dëkk ba def yoo xam ni sax c'est inélégant kenn dootu ko fi répété kooku nag suñu demee tey ba am loo xam ne xalaatoon nañ ko muy espoir ci justice ñu bëgg ci dellu si man de dama jàpp ni rek dama nekk ci position d'alerte et de waaye xalaatuma sax Cour suprême wax lu bokk ak li juge Sabassy wax ndax du ñu weddi seen bopp du ñu seen weddi seen bopp te ku bëggul kenn yi bëgg sa bopp te droit dong la fi wax ñuy woote état de droit bi nga xam ni ci la ci la démocratie adossé wu parce que nag état de droit bu amul ñun ñëpp bu ñu yeboo tiit ci suñu bopp kon lii du problème instance du problème mu benn structure du problème mu benn coalition du problème mu benn pôle du problème mu benn front problème mu Sénégal la Sénégal moo war a nekk ci état de droit Sénégal la ñu war a waxe droit Sénégal la fi justice war a am ndax démocratie la ñu choisir dafa am ñu dëkkoon ci royaume ñun leen royaume yi fermé nañ kenn dëkkatul ci royaume parce que démocratie moo bëgg ay carte di fal ñu teg ay règle justice bi di àtte ci yoon di ko teg ci yoon loolu nag bu amatul amatuñu Sénégal gi nga xam ne mooy Sénégal bu idéal bi nga xam ne moom lañ doon rêvé loolu moo tax kenn warul la toog àppwul kuy politique àppwul ku dul politique ñu ngi saluer ñëpp ñi nga xam ne jóg nañ di dénoncer parce que ñu ngi gën a bare ñi ngi koy def ci tribune ñee ngi koy def ci waxtaan ñi ngi koy def ci xew yi sax dañ koy taasu léegi kon léegi dañu war a xam ni bu fekkee ne droit bi dañ koy wax au nom du peuple nañu xam ni peuple bi li nga xam ni mooy seen yaakaar di seen espoir benn nit moo ko cristallisé il s'appelle Ousmane Sonko je vous remercie. Merci la présidente Aïda Mbodj on laisse la Euh, mbokk yi salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp tey bëggoon jël kàddu au nom des députés surtout au nom du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi ci ndigalu président du groupe muy Birame Souleye Diop ma bëggoon rek xam naa du ma guddal parce que am na lu ñu fi jot a wax bëggoon rek def ñaar ba ñetti appel di quand même nag féliciter sénégalais yi féliciter ces intellectuels yi nga xam ni même ce sont d'anciens premiers ministres parce que démb gis nañu benn déclaration bu 87 personnalités def dont d'anciens premiers ministres et même d'anciens directeurs de grandes sociétés et d'anciens ministères ministres des Finances qui même dans le régime du président Macky Sall. Ça veut dire quoi? Ça veut que Sénégal toll na foo xam ne tout le monde ici est intéressé par ce qui se passe en termes de violation de l'état de droit, en termes de violation de la démocratie. en terme de l'héritage culturel bi nga xam ni moom la fi mag ñu jëkk ñi bàyyi woon donc dama bëggoon féliciter ces sénégalais là féliciter le peuple sénégalais bi nga xam ni depuis que le Sénégal et là ñun ñi ñëpp dafa am lu ñu fi fekk moom laa wax léegi muy un héritage boo xam ni nit ñi ñu ngi koy jéem a perpétuer mais malheureusement le régime de Macky et est en train de tout détruire ma bëggoon nag def benn appel le premier c'est par rapport à la justice de notre pays parce que tey bu ñu demee ba un juge di rendre une décision mu nekk une exception ça veut dire que la justice actuellement dafa éloigné wu du peuple sénégalais donc le 17 le 17 c'est un jour de réconciliation de la justice avec son peuple c'est extrêmement important ñëpp découragé woon nañ ci justice et pourtant su ma yaay Aïda Mboye wax na ko léegi elle marché sur la langue le juge Sabassi Faye n'a posé qu'un acte très très banal et ordinaire il n'a fait que dire le droit donc loolu war woon sax jaaxal Sénégal donc bu demee ba jaaxal sénégalais yi mooy wane ni effectivement justice jubootul ak peuple am te le 17 suba incha allah. normalement c'est un nouveau point de départ pour la justice sénégalaise bi nga xam ne dafay réconcilier wu avec son peuple beneen bi moo koy def aux forces de défense et de sécurité ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp man en mars 2021 quand j'ai été arrêté xam naa koo xam ne ci force de sécurité la bokkoon la bokkoon doomam bokk na ci ñi nga xam ni dañu décédé ci événement euh, événement événement mars yi donc personne n'est à l'abri li ñu leen di ñaan mooy sénégal yi nga xam ne suba dañu fas yéene génn dans la paix la ñu wax surtout dans la paix ñu encadrer leen normalement comme Wade l'avait fait en 2011 j'en profite pour lui rendre hommage parce que Abdoulaye Wade quoi qu'on puisse dire et a été le champ de la démocratie et il tout fait pour que la démocratie reste ce que ce qu'elle a été en 2011 maître Abdoulaye Wade nous l'a montré donc dañoo bëgg suba aussi que ces forces de l'ordre là bañ a def loo xam ne bu ëllëgee ñoom ci seen bopp daañu ko regretter parce que grenade yi ngay dóor ci kaw nit ñi wala les balles li ngay dóor ci kaw nit ñi mën na dal ci sa njaboot mën na dal ci sa doom mën na dal ci sa jarbaat mën na dal ci sa dëkkandoo donc